pourquoi xul wallaahu ahad parce que man julli yëg-yëg la quoi julli yëg-yëg la peut-être am na saar yu peut-être yoo xam ne gën na gudd. am na saar yu koo xam ne peut-être ëpp na ay ngëneel saaro waaye xam naa ne ku laa laa waxat moom dara gën a ko màgg ndax chaque jour yaa ngi delluwaat sa xel ci yàlla ndax yàlla moo fi nekk moom la ñu gëm te ci moom la dellu waaw. waaw nga dëgg de xul waxal allahu yàlla asamadu mooy ki ñëpp jublu ah. lam yalul kenn juru ko extra extra ah. waaw wax nga dëgg ndax saar la boo xam te ne wax dëgg yàlla macha allah mhm. ku ko kii sa xel ak sa xol yëpp ci yàlla lay demaat mhm. papa euh, say ñoo waxtaan ak yow ci te moom mooy koor ndax gis nañ kàddu yi macha allah euh, macha allah daal jub na euh, dañu ñëw ci li nga moom mooy sa làmb ndax sañ ñoo waxtaan ak yow ci koor te mbër nga papa ñu gis ne Papa Boy Djiné ay combat day xaw a metti waaye suñu nee metti bi mooy suñu nee papa am na combat rek parfois ñu koy dégg say kàddu. Mm-hmm. parce que sa mbooloo ak sa entourage nga nekk mbër boo xamante ni wax dëgg yàlla mën nañu wax ne defoo fi li kenn deful ci booy yi nga bokk mais bokk nga mbër moo xamante ni daal wax dëgg yàlla soo amee combat rek géejawaay jóg lu waral loolu. waa nit moom taalibe moom xam nga ci la ay nit. di jaayantee jug jàppale la taalibe si la nit di bàyyee léppam ñëw jox la léppam taalibe si la la nit di gisee di la sopp taalibe si la la nit di la gisee di la yéene jàmm te loolu peut-être bu nekkul si ñun tamit ñu ñu ñu ngi ci yoon boobu ñu ne ay taalibe lañ dëkku gunaas fii nga xam ne tey jii nii quartier la boo xam ne quartier gënu ko rëy ay volontaires yu bëree bëree bëree bëri nekk fi ay mbër yu bëri bëri bëri bëri nekk fi tey mun naa ne ci mbër yu gën a nekk xale man ci laa bokk fii Gunaas ay peut-être ci mbër yu ëpp tur Gunaas tey ci laa bokk comme ni ma ko waxee bërki démb Njaay rek fekk dafa amoon benn problème bu ndaw bu amoon fii suñu koñ te was nu nañ ci àq man ak sama garaam mu jóg ba yàlla def ci ndox mu sedd di ñaaral ñi nga xam ne ñoom lañ ci tee tamit suñu borom yeggale yéene gi ba ñu génnaat foofu ñu nekk dellusiwaat fii te xam ne seytaane dafa bëri doole te fu mu xajul rek lay dugg kon yàlla ñu yàlla musal ci seytaane xëy ñooñ dañoo jum rek waaye loolu du seen habitude quoi tey man gunaas fii su ma jugee li waral ñëpp jóg parce que peut-être daa am yar bu ma leen woon am taali bu ma leen woon man même même xale bu ndaw sax. dama lay jox li nga moom parce que fii koo faalewul rek faalewu la koo yëgul rek yëgu la parce que man duma dara te lu ma war a doon doomu aadama yi ñoo ko war a def ci man moom mu waral man tey su fekkoon daan wala daanu tey gunaas moom lañ ma jàppee wala moom lañ ma toppee kon sama làmb jeex na waaye man combat bu ma ñàkk rek wala ma jógee ci combat am ci ndam rek su ma maatee combat ci la mbooloo bi di gën bëree ci la mbooloo bi di ëppee. kon man damaa dem ba gëm ne man ñi jàppeetuñ ma làmb li ma war nag mooy may def fulla def fayda yokkaat samay entraînement yokkat samay gëm-gëm parce que sport booy def te amoo ci gëm-gëm rek du dem mais Gounass moom non mention spéciale seetaanuñ ma benn yoon seet combat laa bëri mais combat bu jot lépp lu war ci bés bi ñoom dañ koy def muy suma mag yi fi nekk ak suma grand yi fi nekk suma papa yi ak suma yaay su ma amee combat maire dañu def seeni hôtesse te seen moyen bopp lañ koy defee xale yi même chose jàppale seen doom jàppale seen xarit fi bari naay mbër ku ci nekk am nga tur mais man sama sama slogan man dama ñëw ne man doomu gunaas kon doomu gunaas boo ko xasee wax même liir buy soog a judd sax bu nekkee góor sa papa la bu nekkee jigéen sa yaay la parce que yow yaa ayoo doom te doom lu ne ëmb na ko te loolu du ndaw te bu keroog may dee. gëm-gëm boobu laay am Papa Boy Djiné doomu Gunaas bàyyiwuma nag Gunaas gi yëpp waaw. Papa Boy Djiné doomu Gunaas wax nga ko nga def seen combat mais papa ñu bari dañ naan papa yorul jikkoy mbër parce que papa ay combat du yaatal mooy que papa day jël combat am ñoo xamante ni moom combat bi muy jël moom moom moom personnellement moom mooy jëlal boppam ay combat am. mooy préparer ndoom ay komba c'est-à-dire papa joxul boppam nit ñi parce que jëw boobu moom man dama koy dégg ñoo xamante ni sa koñ lañ dëkk ñuy wax loolu noonu pourquoi loolu mbër boo xamante mooy jël boppam combat du joxe boppam. waaw xam nga àdduna kenn ku si nekk rek yow da ngay xool li lay jëmale kanam nga nekk si jox yàlla sa bopp moo gën a wóor jox sa bopp doomu aadama. man yàlla laa jox sama bopp ak Serigne Touba. mais euh, bàyyi ma bu ma dog question nga ma jox. Mm-hmm. bàyyi ma ñëw. Mm-hmm. d'abord loolu yëpp bu jàllee. ma santaat yàlla bu baax. man ginnaaw comme joxuma kenn sama bopp. maa ngi daan maa ngi daanu loolu ndam yàlla moom moo ko. kan laa war a jox sama bopp ku weesu yàlla. kan laa war a jox sama bopp. ku weesu ku mel ni jëmm ju mel ni Serigne Touba sport laay def am na ñàkk am na gañ man sama làmb tey su fekkoon damay ñëw di daan di daan di daan di daan kenn du wax si sikk papa kenn du wax defu papa ñun Sénégal dañoo nekk ay sportif mais gëmuñu ko. parce que gëmuñu daanu te daanu mënoo ko génnee ci sport. Mhm. ñoom pour ñoom kii daan rek moom moo war a wax. ki fi def dara rek moom ma war a wax ki deful dara daal warul wax mais pourtant su ma toogoon suñu kër ngembuwuma takkuwuma dew ma si sëriñ dew ma diin dew ma fenn pourtant man du ma ñëw ci làmb di ci wax déedéet parce que defuma ko mais man maa opté làmb nekk xale bu ndaw bàyyi su ma jàng bàyyi su ma lépp opté làmb gëm ko nekk si di reyante di reyante di rayante di rayante man ba làmb moo ma jëlee fii gunaas yóbbu ma kaso kon lamb moo la moo ma jëlee gunaas yóbbu ma kaso tey képp kuy doomu gunaas nga dëkk gunaas rek li may wax nii tey boo ko dégloo dinga xam ne papa li muy wax dëgg la amul mbër buy takk ngemb biir gunaas waslu si làmb xoslu si làmb daj làmb si coono ba gën ma daj coono ci làmb man bi ma demee kaso si làmb ñu mbër yu bari dañoo tekki woon seen ngemb baay bëri. ndax lan nga wax barki alxuraan ndax làmb dañoo yaakaaroon ne ku mu gis ak da yóbbu kaso. man bi ma dellu siwaatee gëmaat làmb si la booy bëri takkaat seen sët duggaat ci làmb barki xaadimul musafa billaahi wallaahi wal kitaabi ay nit yi nit dañ doon ñëw rëbës di ma seesi naan man bàyyi naa bëri parce que fekkee woo yëgoo tinoo ñu jël la yóbbu la kaso ma ne la non non lii destin la bu yàlla bind sama jël ala kulli aal dama koy dund. mbapat la woon. mbapat la woon. man bëriwu ma xaadim Balla Gaye benn gaan bu dëkk fii moo doon bëre si làmb ji période bii nii weeru koor la woon nii barki alxuraan karim yàlla naa fekk sama papa fi mu tëdd loolu dama noon duma du ci wax waaye boo nee papa joxewul boppam rek après loolu mooy tax may wax parce que man duma jox sama bopp doomu aadama romb yàlla parce que doomu aadama xam nga doomu aadama lay doon ba xëy dee. léegi mbapat boobu noonu période bii weeru koor. du ma ko fàtte 2011 weeru koor barki salaatul fàtte dama tëdd feebar koor gi biñ nee koor gi des na ay deux jours laa tëdd feebar sama mag buri peut-être émission bi jàllee moom bu ko dégloo tey jii nii soo demoon ba toog ak moom sans émission moom dalay waxaat li ma la wax nii dara du si deñ te am na ñoo xam ne ñuy gunaas mu la wax dara du si deñ barki yàlla bi koor gi desee deux jours laa tëdd feebar ba niñ korité lan demee korité si laa sax commencé xaw a tane nii si laa jógee suñu kër ne bur yoo xam ne dox mu ne ma bul dem toogal yow ay feebar nii nangam nangam nangam ma toog fekk boo dañoo korité ko dañoo korité suma juumul lundi mardi mercredi jeudi nekk signature làmb ji vendredi samedi nekk làmb ji làmb ji dañoo signature jeudi dañoo signature astafurlah mercredi jeudi vendredi samedi mu nekk làmb ji. te bëreewoo ci. te man bëreewuma ci làmb ji mais yàlla dafa dogal gunaas fii gunaas ba mu daj. gunaas ba mu daj laa wax ñi ma jiitu ci làmb ñi ma mag ci làmb yàlla dogal na man mbapat peut-être def naa ci defuma ci yàlla moom moo xam. Mm. parce que léegi doomaanam aadama toll nañ ci booy wax sax. Mm. lu ci bëri am na ñoo xam ne ñu fekkee dañ naan duñ gëm. Mm. ñu fekkee am na ñoo xam ne peut-être dañuy nekk ay noon peut-être ñu gëm peut-être duñ gëm mais ñi fekkee laay waxal ak ñi xam papa bu baax mais gunaas man mbapat ci sama génération laa wax de barki alxuraanul karim maa fi gënoon seer kase si mbapat gunaas ba mu daj laa wax gunaas ba mu daj. Mhm. maa gënoon seer kase fii si mbapat li ma doon bëri si mbapat amul benn booy bu ko si doon bëri man dama doon tegle vendredi samedi dimanche yëpp di ko bële barki alxuraan dama doon bëri vendredi bëri samedi bëri dimanche. te boobu ma nii mbapat. li ma la wax nii war na Serigne Ba maaj maaj mi toog fii mun na ko seede benn jour dimanche bëri naa fii mu arbitre combat bi fii ma bëri fii daan moom moo arbitre combat yi maaj maaj jël am naa jël ma gars yi bëgg a werante ma jug si làmb ji sol sama yére génn làmb ji demaat bëri ji station Touré xaarim ëmma seen laa fanu bëreel bi may dugg si làmb ji dama ñëw fekk ñu jox ko drapeau bi ba muy waaj génn pour dem ñibbi li ma ni na Salif la ñu tuddee woon drapeau bi bi may dugg si làmb ji ak sama booy rek. lañ koy jox drapeau muy génn rek ma daw jubali si micro bi rek yuuxu turam ay xaar mu mos a ne kaay kaay kaay kaay kaay bul yóbbu drapeau bi loolu dafa yomb rek mu wàññeekuwaat moom jàmbaar la woon moom it. bu mu wàññeekuwaatee ñëw tegaat joxaat drapeau bi ki ñu ko tuddewaat ñu bëri ma daan ko jël drapeau bi ñibbisi si même jour bi li ma la wax nii Macha man na ma seede barki Seydina Mohamed mais man sama dem kaso. su fekkee man tey jii làmb tey su ma neexoon bi ma jugee sama kaso boobu su ma neexoon ma jël làmb teg ko da am fu am fu am solo foo teg sa kii ndax parce que ni ngay waxee euh, kii ngay waxee lu lu jóge si yow ngay waxee parce que làmb kon am na lu bari loo xamante ni làmb def na la ndax làmb boo xamante ni yow sa yoon nekku si bëree woo bëree waa noonu naam ko boobu sa tur moo nekk foo xamante ni macha allah gunaas ku fa ñëw rek papa ngay dégg léegi après yow làmb jooju mbapat boobu après suivi bi ñu bëgg a xam. li ma lay wax nii. Mhm. ki ma lay nii nii nii gunaas yow daj. si promoteur à part Assane Assane bu dëkkoon fii notaire Pata fii Gunaas. Pata Pata. mun naa ne mbër bu fi fayeeku kase bu seer si mbapat. ak Mouhamadane. si mbapat laa wax fii mbër bu fayeeku kase bu seer fii si. ñoom ñetti ñooñu ñoo la ko fay. Pata ñu koy nuyu au passage borom Italie la suma mbapat sax fay na ma si fanweeri junni. te li ma la wax nii ay 2007 ay 2006 mbapat pour nga bëre ko si ay fanweeri junni yombul mbapat. nekk booy bu ndaw laa la wax. mais après kaso bi euh, mbër bi doon bëre léegi yow foofu après yàlla dafa dogal loolu si weeru koor gi bi mu jàllee. Fama Diagne mu bëgg nga li ma na nii bu baax. nit buy fen wala buy wax lu dëgg nii du jàpp wax ji. te li ma la wax nii xoolal du ma fàtte de léegi léegi si biir wax ji ni maa la koy wax. bi koor jeexee ñu def signature bi mercredi jeudi vendredi samedi nekk làmb ji. fii terrain Waldaan du ma ko fàtte barki alxuraan laa wax billaahi man bi may départ suñu kër di dem ci làmb ji sama mag buri mu ngi naan ma bul dem yow da ngaa feebar da nga jóge si feebar doo tonga noppul da ngaa bëgg bëre yow nee nga fu làmb am rek nee nga di nga fa dem te da ngaa weex dung toogal toogal toogal ma ne ko ba am dem seetaan comme bi koor gi jàllee bu dégg mbappat amul gunaas xaa ma dem rek seetaan si laa jógee suñu kër dem dem si mbappat man bi may ñëw bi may egsi si buntu làmb ji net xaadim Balla Gaye mu ngi taxaw si digg géew bi arbitre di waaj a sifflé nga xam ne nattu suñu boroom ak loo wara a bokk doo doo ko doo doo ci romb mukk mukk mukk man bi may dugg si làmb ji nekk arbitre mu ngi sifflé ñuy léetoo nii ñu bëre ñoom ñaar action bi jóge ci biir la jëm ci biti jël am na ak jël amul ñu jox beneen booy bi victoire rek gars yi commencé sànnee xeer man mënu jóge ci feebar naan damay xeex si laa génnee si làmb ji am na loo xam ne jaaroon na sama diggante maa benn grand tey te fàttaliku lu ñu baaxul. maa ngi koy nuyu Ali de. Mhm. peut-être juum na def benn erreur waaye loolu dama ko si baal àq te yàlla tax parce que xamul. parce que jour boobu bi booy di coow peut-être yor na yor na yor na cours. li may génnee noonu ci làmb buntu làmb ji noonu rek mu wax saaga ma ne ko garant bul saaga parce que man man bi may nekk xale ba ni ma toll nii mhm. man ak noo mën a toll ci àdduna du tee man dama leex li nekk si man après bu la neexee ñu reyante man ak yow man gëm-gëm boobu laay demee saa su nekk mhm. après ni mu waxee noonu man maa ngi man war naa dem sax rek mu xàcc kuur bi mu koy bëgg a dóor rek ma def ni après noonu nag cooli naan ay papa papa popa yëpp sama coow man ak moom moo agaraf agaraf agarafe wax ci yóbbu sama tur fekk man moom maa ngi moom ñoo doon coow te pourtant bi muy saaga booy yi pour mooy sama booy yi xam nga man làmb ñun Gunaas fii ku fi doon bëri rek booy yëpp dañ doon mànkoo doon benn ànd ak yow sama booy nga xam ne ñoo ma doon yóbbu mbapat ñoo yóbbu xaarim Balla Gaye moom nag xam naa peut-être Iba Iba kii Iba Iba grand moo tëggoon làmb ji coole mu commencé saaga booy man ne ko yow waroo saaga booy noonu mu commencé discuter noonu rek mu saaga ma delloo ko ko noonu man après maa ngi woon ginnaaw di dem sax rek mu dogaale ma. laa siisoo nag xataraay nag man bi ma xoolee ma gis sama deret ma ne du ma ko bàyyi ñu àtte àtte wax ma ñu ne du bàyyi après nag sama waa gàll si la ñëw foofu jël si ma yóbbu ma fii hôpital a saar ma faju foofu après waat sama gàll ñëw toog foofu. après coow li dem mais su guddi gi ay 23 heures jàpp ay minuit après rumeur commencé daw am na benn booy bu ñu jëm ci làmb ji am na benn booy bu ñu ci làmb ji après nag kiñ ñu jam moom bi muy dem di def plainte bi xamul kan moo jam rakam mu xamu ko xamul ñan la après bi mu demee moom comme man maa gën a siiw. ci ñu nekkoon foofu si làmb ji te peut-être yàlla moom moo xam quoi dëgg rek moo neex yàlla suñu borom sam booy ñoom ñoo nekkoon si làmb ji ñoom ñoo doon léegi bi mu demee def pelante moom pour mu mën a xam kan moo jam rakkam man mu dugal ma ci cool yi moom mu ne guru bu ñoom papa booy jënne ñoo jam sama rakk man damay bañ ba xëy dee lu ma deful defuma ko te lu ma def man même bu yàlla taxee man man maa ko def bien que moom moom may gis police Sénégal ñoom xamuñu nga def ak nga deful ñu xamuñu loolu. Uh-huh. ki ñoom lu ñu gëm chaque jour rek ki jiitu police jàpp nañ ne moom moo am dëgg uh-huh. yàlla dogal loolu bi mu demee def pelantam ne groupe ñoom papa booy jinne ñoom ñoo jëm sama rax. Uh-huh. après policiers yi ñëwuñu si guddi gi bi ñu xëyee lendemain si dimanche yi man bi ma xëyee noonu bi làmb ji jeexee noonu ma dégg rumeur jàppal bàyyi après man si laa ne xaama dem sama kër tante kër Massar. fekk sama tante dégg na bi mu yeewoo suba gi mu dégg test bi noonu mu woo ma man dem Kër Massar bi ma fa demee mu laaj ma woo ma si ko sama rakk sama magu yaay la rek comme doom rek. mu woo néegam ne ma ma dëgg parce que yow xam naa la bu baax a baax a baax a baax ki ñu dafa dee. après mu ne ma wax ma dëgg parce que test bi ma déggee ñu ne papa booy ji ne mét ma gonaas nangam nangam. Mhm. moo tax ma ne xaaral ma woo la moog sama mag Abou Seye mhm. moom moo ye moom moo yor écrit jëf soo ko nekk Abou Seye moo. moo kii ah mut booy si la ñu si laa ñëw ñu dugal seen néeg toog man na ma waxal sa digganteeg yàlla ndax xeex bi ki ñuy ja ki ñu jam noonu ndax yow loolu du yow man wax tànn man loolu su fekkoon man la man du ma rus wax ne man la parce que tey ki ñu jàmm dee moom moo gën a metti la man mi nga xam ne maa fi toog te tey munul metti metti metti metti bañ rey ma kaso rek lañ ma yóbbu mais mun naa ko waat si yàlla billaahi wallaahi wal kitaabi xeex boobu man fekkewuma ko mun ne ma ah mun a mun a ah, kon baax loolu laa doon dee après bi ma ñibbisee ma ñëw sama papa ne ma policier yi de ñu ngi la doon laajte fii ñu ngi la doon seet fii ma ne ko ñu ngi ma doon seet lu ñu may doyee mu ne ma ah góose ñëwoon na fi di la seet ma ne ko ah mu ne ma ah ma ne ko ah kon baax na amul problème comme dañ ma doon seet peut-être ñoom bu ñu ma soxlaa dañuy ñëwaat suñu kër dimanche noonu ay 18 heures laa ñëw suñu kër après ma tëdd ma tëdd sama néeg fa laa tëdd tëdd tëdd pour ma ñëwaat ñëwaatuñ bi ma xëyee si lendemain bi lundi comme ñëwuñu te ñëwoon nañ fi ñëwaatuñ man si laa jógee sol sama yére ànd ak sama papa ne ko man bañkat laa te xam naa ne policier bu ñëwee suñu kër ne dañu may jël si am na ñu may jëlee rek pour yóbbu ma dañuy yóbbu sama bakkan parce que bu fekkee defoo waxoo rek am na nu ñu lay jël see rek amaana mun na demee neneen baal mu yóbbu sama bopp police après si laa ànd ak sama papa mu ngi si dëgg maa si fen ñu ànd dem ba police bi ñu yegsee policier may ñu ma sax may wax may ñu ma may wax damaa ñëw ñu commencé jàpp mu di ma dóor wax def lu mu nekk loolu bugguma sax. di si wax nii di si fàttaliku parce que su may fàttaliku rek sama xol day bon si loolu waaye bés dina jot ma waxaat si leeralaat bu baax baax a baax a baax parce que loolu tey sama papa da wax wax si wax si wax si wax si ba xëy dee am ci mitit mititu xol waaye loolu yëpp man sama gëm-gëm rek laa am di dem. loolu dama ne dama dama dama ne loolu am na yoo xam ne duma si nekk di si sori waaye ki may waxal ne tey jii nii moom xam ne boobu mu baax tey lépp rek tey moom la woon lépp rek moom la woon tey tey suñ ma yóbboo kaso rek moom moo tax waaye lu may wax mu julli si weeru ko lañ nekk jégal naa ko tey rek tax waaye xam naa ne keroog bi si penje loolu dina leer ci kanam suñ boroom parce que nit bu fekkee deful waxul te tinul fekkewul nga jàpp ko yóbbu ko kaso si ay détails yu ndaw waaye loolu yàlla suñu borom xëy na moom moo ko bind te moom moo ko tudd lu mënta ñàkk la woon day am am na garaawul waaye dina gën a leer loolu parce que lu ma metti la lu may dund sama biir xol la waaye destin la bu yàlla bind sama bind sama jë moo tax man du ma ku fonk doomu aadama laa ku gëm doomu aadama laa waaye du doomu aadama peut-être moom laay jox sama bopp wala moom laay jébbal sama bopp déedéet du aadama laay jébbal sama bopp man yàlla laa gëm yàlla laa doyloo lu am yàlla la lu am suñu borom la tey làmb ji may dund nii tey su ma neexoon suba suba mun naa ko bàyyi su ma neexoon suba suba mu bàyyi ko waaye du ma ko bàyyi parce làmb dafa ma am lu ma amee loo xam tey jii ne ma ko war a jëli ji te incha allahu rabbi bu neexee yàlla bu fekkee yàlla li muy may jeexul cër bi ma am ci làmb dama koy jëli ci kàttanu yàlla man lu gëm-gëm boobu laa am peut-être lii nii xam nga fi mu ñëwee la nii sax nii ma yaatal si ak yow waaye bugguma si woon sori waaye dinaa leeral loolu ba mu gën a leer parce que biñ ma jàppee man avant ñu may defeere man li ma daj li ma daj. barki arxuraanu karim bëri na góor yàlla yoo xam ne bu ñu ko dajoon nangu na ñoom ñoo rey waaye nit boo nekkee si dëgg yàlla day ànd ak yow te dama nekkoon si ma dëgg moo tax borom ànd ak man waaye moment boobu tey jii nii pourtant ah ki nga xam ne moom ma def problème bi actuellement mu ngi foofu maa ngi koy ñaanal Kéré Ndiaye ki nga xam ne tey jii nii moom moo ko def. après ki nga xam ne. moom moo ko def. Hmm. te pourtant bi ñu ko jàppee moom si jëmmam nee na carrément jëmm ji fekkewul problème bi mais teewul dañ maa defeere ci loolu te ma fa ñetti at. ñu bàyyi ñu soog may bàyyi si problème boo xam ne yëguma tinu man mun naa ne tey sama làmb tey su tardé rek loolu moom moo ko gën a la mais man li ma li ma def si mbapat fi ma jaar si mbapat li ma dund si mbapat ñi ma bëreel mbapat non barke alxuraanu karim tey loolu su ma ko privé si làmb kenn mënu ma téye si làmb parce que am naa capacité bi am naa sañ-sañ bi waaye yàlla moom mooy jël lu ko neex mu defee ko nu mu neexee. kon dañ ciy santaat yàlla bu baax di julliwaat ci yonent bi di sant Serigne Touba bu baax te biñ demaatee ba toog di am sañ suñu pour waxtaan rek loolu dañ koy santaatee ku tedd ki bu baax a baax a baax a baax di jégluwaat Sénégal bu baax a baax di ñaanal ñëpp jàmm di wax loolu dinaa ci gën a leeral peut-être jotagul waaye bu jotee dinaa ci gën a leeral bu baax a baax a baax baax baax a baax di sant senegal yëpp di jégluwaat senegal bu baax a baax jaajëf waaw wax dëgg di leen jëli waat bu baax a baax ñu suuf si wasaare làmb wax bëggoon nañ ko neneen mais émission bi wax dëgg yàlla man boobu mënatuma koo continuer wax dëgg yàlla xam naa bas dañuy tàggoo rek euh, tàggoo bu dul tàqaligoo moom Papa Boy Djiné di ko remercier waat bu baax a baax a baax di ko bëggee wax bu baax a baax ndax làmb ñu naan ay coono la rek ay coono la mais yàlla rek a xam daal yàlla nañu yàlla yàlla nañu yàlla musal daal la ñuy wax parce que ndox dafa gaaw waaw yàlla nañu yàlla musal chaque jour loolu la ñuy wax ndax mii la làmb moo garaaw lu ne xaj na ci mais nag wax dëgg yàlla santab yàlla ba li nga xam te tey defoo ko te ba kaka def feeñ lii yëpp nga koy nettali sant yàlla sant yàlla di remercier bu baax a baax a baax a baax dëgg yàlla man mënutuma sax wax ci disponibilité bi xam naa émission bi papa dañ koy kii rek dañ koy arrêté fii daal bas waaw dañ koy arrêté fii dina wax sa kàddu gu mujj waaw maa ngi bu baax ñaana sam baab fi mu tëdd yàlla xaree ko àjjana parce que moom moo nekkoon sama kanam moom moo nekkoon sama ginnaaw tey su ma demee ba mën a toogaat fii di wax rek ginnaaw yàlla ak yonent bi sama papa moom moo tax sonn na si man dañ na si man ay coono dox na si man wax na si man mais yàlla nii la bëggee amoon naa yéene si moom tey bëggoon naa tey ni ñuy yóbboo papa yi màq mu yóbboo ko noonu màq bëggoon naa tey ni ñuy jëndalee papa kër ma jëndal ko kër. bëggoon naa tey lépp lu ñuy defal waajur ma defal ko parce que coono yi mu daj ci man man xam naa ko waaye peut-être yàlla nii la ko bëggee maa ngi koy ñaanal fi mu tëdd yàlla xare ko àjjana mënu ma wax si moom parce que li mu daj ci man la fi mu jaar ci man la mais garaawul daal maa ngi sant ñëpp di sant kër gi nga ma fekk nii suma garaay fii yëpp maa leen di sant bu baax rawatina sama xarit mu caam maa ngi sant bu baax. que ñoom moo ci am laa nekk fii tey fii laa ñëw tourné fi émission yi parce que bu nekkoon suñu kër tey lii li ma lay wax nii su ma ko expliqué tey suñu waa kër yëpp mën nañoo jooy ànd ak man parce que loolu lu ñu dund la mu metti woon rawatina sama mag buri jóg dañu say cooro yu méttee méttee métti ak ayda faj jóg mais xam nga moo tax ma ne naa ñëw fii parce que xam naa sama bopp. te ñoom it ñoo xam naa leen tey man bugguñu bugguñu ma gis sax may mer wala may jooy parce que su ma jooyee rek ñoom dañuy jooy maa leen di ñaanal bu baax di ñaanal sama soxna di ñaanal papaam di ñaanal ay rakam di ñaanal sama xar yëpp di wax yàlla yàlla def jàmm si réew mi yàlla kàttanal ñu dooleel ñu képp koo xam ne mos naa la tooñ te yëgu ma ko tàllal naa la sama loxo nga jéggal ma te yàlla tax ku ma tooñ nga yëg ko ak nga yëgoo ko jéggal naa la te yàlla tax. ci barke yonent bi ci barke Serigne Touba yal na yàlla def jàmm si réew mi di ñaanal mbëru Sénégal yëpp yàlla defal leen jàmm kàttanal leen dooleel leen ci barke alxuraan jërëjëf. l'émission tire à sa fin di ko waat bu baax a baax moom Papa Boy Djiné mu nekk koo xamante ni wax dëgg yàlla ma xarit la ma lépp la parce que li yombul wax dëgg yàlla à chaque fois rek su ma ko woowee ne ko dama bëgg émission mu ne ma amul problème. wax dëgg yàlla ndax xaru kanam ba ma ko xamee woon ba ma woonoon ba léegi loolu la ma woon mu nekk nag ku baax nekk suma xarit di koy ñaanal bu baaxa baax a baax di béyewaat nag ki nga xamante ne moom mooy soxnaam muy ndéygéey moom nekk suñu chéri moom it nekk suñu lépp moom yàq ci dara moom it di koy ñaanal rek wax dëgg yàlla di ko ñaanal di ko ñaanal bu baax a baax naan ko wax dëgg yàlla daal yàlla baax naan ko jàppal rek ma chéri te tawoo bàyyi yow moom yaay nga lépp nga wax dëgg yàlla gis nañ lépp ñu ko bu mu ko gisee chéri la may wax mu naan ma chéri ndax ngir yàlla ak papa moom it di ko remercier bu baax a baax Papa Boy Djiné moom di ko remercier waat bu baax a baax tey nag émission bi wax dëgg yàlla yàlla xam na ni ba ñuy ñëw sax dañoo ñëwoon nañ ci beneen intention parce que am na leen lu bari lu ñu bëggoon waxtaan ak moom combat am ak bébé bis ak instant bi fi làmb toll mais wax dëgg yàlla mënatuma àgg di leen wax rek di leen jégaluwaat bu baax a baax a baax a baax yéen yéen a ma laajoon Papa boo Djiné indi naa ko mais xam naa tey émission bi ku ko seetaan sa xol dina tooy wax dëgg yàlla tey boo leen ba gisee nii sa xam ni sama xol dafa tooy di ko ñaanalaat di ko wax daal courage rek frérot yàlla baax na di bëggewaat ñëpp ah mbër ak diine waaw dañuy xoolaat nag beneen daanaan Basirou Diouf sama séeréer bi di la bëggewaat bu baax a baax di la wax yàlla na sa jàmm yàgg di baaluwaat ñëpp àq di baal ñëpp àq di wax Sénégal rek yàlla na yàlla def jàmm ci barke Seydina na kontaan nañ ci yow papa bu baax a baax. jaajëf jaajëf.